أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من شر إبليس وجنوده ثم صلاة وتسليم يفق على مسكين ورند على ذي الفضل والعدم ورضي الله عن صاحب الختم المحمد الرباني تاج العارفين وممدهم كبرية الأحمر man aasa abhura alyaqiniyaati nayla lahaali ilahiyaati fa naala ma naala min alwilaya min rabbihi waljah walwalaya badru sukuki alamul muniri bahrul haqaiqi bila tankiri cheyqina wa cheyqi suyuqina abil fuyudati abil khayrati maulana cheikh seydi ahmad tidiani sérif radiallahu taala anhu wa baad assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu gannaaw bi ñu sante yàlla julli ci sangu sang yi sayiduna muhammad salallahu alayhi wa sallam jaarale ngërëm la ci suñu sëriñ Maulana Cheikh Seydi Ahmad Tidiane ñu ngi ñuy jullit yépp képp koo xam ne yaa ngi ci jataay bi ak képp koo xam ne yaa ngi seetaan waxtaan wii ñu ngi lay nuyu ci nuyoo bi gën a tedd muy asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu di ñaan yàlla subhanahu wa taala li nuyo bi làmb ci jàmm ak yërmande ak barke yàlla ko yàlla dotti ci jotaay bi képp ku fi nekk rek yàlla jàmm jooju bu mu la ump ci barke Maulana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi jiital ci nuyo bi ak ziar bi ah tabaarakallahu ar rais muy président daaira al fi fillahi sëriñ Mouhamadou Ba fa tabaarakallahu di ko nuyu di ko ziar ah di wax ne kàddu yi ñu yëkkati. kàddu yi diis la ci ñun waaye nag seen i ndigal fa tabaarakallaahu ci leen ko jote sama turandoo Cheikh Alhaaj Abdul Aziz daraan wax ne al imtisaaru bil awaamiri la yadurru mu ne ndigal bu ñëwee rek jëf day dàqu lor day dàqu kon fa tabaarakallaahu jàpp nañ ne kàddu yi ñu yëkkati benn lor du ci am di nuyu di ziyaara mbooleem ku nekk ci adduna bi di jiital ci nuyoo bi itam ak ziyaar bi mawlaaya al xalifatul aam li taifati tijaaniya sëriñ Babacar Si xalifa général de tiijaan di ko ñaanal yàlla yàlla guddal fanam may ko wér ak mbooleem jabatu suñu maam Cheikh Seydi El Hadji di ziyaara bu baax suñu wéyjur suñu sëriñ bu tedd ba nekk ca Touba sëriñ Mountakha Mbacké fa tabarakallahu Cheikh El Hadji Ibrahima ca Kaolack ak mbooleem xalifa généraux bu nekk Sénégal ñu ngi lay nuyu la ziyaar bu ngeen gisee jotaay tey bi nag fa tabarakallahu euh, ñu xam ne dafa am lu lu xew li xew nag mooy mawludu nabi sallallahu alayhi wa ci ndigalu xalifa sëriñ Mouhamadou sëriñ Mbaye Sy Mansour joxe woon ren benn thème bu am solo muy assalaam muy jàmm mu ne nag fépp foo xam ne rek ñu ngi fay taxawee gàmmu gi nañu fa waxtaanee thème bi moo tax tey jii ci ndigalu kilifa yi ak rafet xalaat bu rafet bi nga xam ne joge na ci kilifa yi ñu dajale fii ci jëtaay bi ay kilifa yu tedd ay borom xam-xam yu tedd macha allahu ñu war a waxtaan ci thème boobu incha allah damay ñëw rek présenté kilifa yi nga xam ne tabaarakallahu euh, teew nañu fi damay njëkkee fa tabaarakallahu ka nekk suñu càmmoñ muy Serigne Mourtada Touré mu bokk ci waa kër maam si Ahmad Bamba Xaadim Rasoul di borom xam-xam di ku am yar tabaarakallahu di kat moom itam bokk na ci jotaay bi nga xam ne war nañ koo yaatal fii tey ah tabaarakallahu ki nekk ki dend ak moom muy. sëriñ Mouhamad Ba di président daaira mutahabina fillahi nekkal fi njabootu Cheikh Seydil Hadji Malick yëpp macha allah ah ki nekk si sama càmmoñ moom itam fat sama ndeyjoor di Serigne Baye Guèye di waa kër suñu maam Alhaji Ibrahima Niass ca Kaolack fa tabarakallahu moom itam bokk na ci jëtaay bi ah mu dend ak suñu Serigne Serigne Assène di njaboot ci suñu mbaay mu xujja seen ca Jurbel incha allah moom itam bokk na ci jotaay bi. ak Serigne Moustapha macha allah di njaboot ci suñu waa kër maam euh, euh, maam Abdou Sadou Cheikh Sadou fa tabaarakallaahu di njaboot ci si Abdul Xaadir Jeylaani waliyu yàlla bu mag boobu fa tabaarakallaahu kàddu yi duñ ko guddal ndax tabaarakallaahu déglu wun ma borom xam yi lañuy déglu bu ko defee rek dañuy njëkkee ci nuyoo jox kilifa yi nga xam ne ñu ngi ci jotaay bi kenn ku ne ci ñoom rek mu jot li nuyoom fa tabaarakallaahu jot li nuyoom. Euh, bu ko defee ñu doog a dugg nag ci thème bi képp koo xam ne rek jàmm itteel na la bul génn saal bi na nga toog ndax tey di nga ci dégg loo xam ne nii tabaarakallaahu mën na laa jëriñ fii ba àddunay tukki kon nag fa tabaarakallaahu dañuy jox rek suñu président euh, Mouhamed Ba comme moom moo woote ñëpp a woote sax waaye moom tàgge boo gis am na jàppal diw moom tabaarakallaahu mooy président daayira bi organiser gàmmu gi bu ko defee rek moom mu njëkk a nuyoo euh, dalal ganam yi bu ko defee ñu doog a dugg ñu doog a jàll ci ñeneen ñi asalaamaaleykum président. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. waaleykum salaam. mbokk eh, ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara leen balu bu baax a baax di ñaan ngeen baal ñu te nangu suñu ziyaar di ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu waruñu jéggal si màggaay ak baaxee barke Seydina Muhammad ah, di ko sant ci kàttan gi ñu may dellusiwaat fii. yàlla di taxawal li nga xam ne bi daaw lañ fi daje woon di ko taxawal muy gàmm gi fa tabaarakallaahu kon ñu ngi leen ci ndokkeel baax bi di leen ci ziyaare eh, di nuyu mboolem sang yi nga xam ne lépp ñoo fi teew fa tabaarakallaahu di nuyu waa Touba TV eh, waa Tivaouane TV Argentine eh, di leen ndokkeel ñoom itam fa tabaarakallaahu di rafetlu it macha allah seen liggéey wax dëgg yàlla di ñaan subhaanahu wa rek mu yokk lépp Euh, tawfeex ak sutura mot li yéen yëpp fa tabaarakallaahu i gannaaw bu leen nuyoo wax dëgg yàlla ziar leen ndokkee leen ci bés bi fa tabaarakallaahu ah di wax rek ñu ngi dalal suñu sang yu baax yi nga xam ne ñoom lañu fi dajale pour ñu waxtaan ci affaire thème bi nga xam ne nii mooy jàmm fa tabaarakallaahu nekk thème boo xam ne wax dëgg yàlla xëy na ci jullit lañ ko gën a séentoo waaye jàmm moom yaakaar naa ku dul jullit sax yitte woon na ko fa tabaarakallaahu ndax subhaanahu wa moom amul lenn loo xam ne dig na ko doom aadama lu dul jàmm fa tabaarakallaahu jàmm rek mooy li nga xamante ni moom la ñu yàlla dig fa tabaarakallaahu su ko defee kon ñu gàttal rek ndax wax dëgg yàlla kon ñi ko war a waxtaan ñu ngi toog incha allah ñu taatan lépp loo xam ne rek muy rot ci ñoom te it ñaan subhaanahu wa taala may ñu ñu dégg ko dégg goo xam ne dañ koy jëfe ji incha allah su ko defee ñu ngi nuyu ñëpp di ziyaar ñëpp fa tabarakallahu di nuyu suñ kilifa yi nga xam ne wax dëgg yàlla ñooñu nampatal ci lii ba ñëw taxayoo ko fii fa tabarakallahu muy suñ wujur wa nekk ca Tiwaawoon fa tabarakallahu de Cheikh eh, Mouhamadou al eh, Babacar Sy Mansour fa tabarakallahu eh, suñ mbay si yàlla na yàlla guddal fanam yokku wéram woyofal yeen bi ak mboolem ñi koy jàppale fa tabarakallahu Eh, di nuyu suñu maam ja nekk Touba fa tabarakallah Mouhamadul Mountakha Mbacké fa tabarakallah di ñaan yàlla subhanahu wa taala mu guddal fanam yokk wéram eh, defal ko tawfiq ak mboolem ñu koy jàppale macha allah di nuyu maam ba nekk Ndiassane fa tabarakallah di nuyu maam ba nekk Kaolack macha allah di ñaan xalifa général yi nekk Sénégal yëpp macha allah ak seen ak njaboot yàlla sàmm leen aar leen mort li seen yéene eh, woyofal seen yéen fa tabarakallah di sant nag képp koo xam ne rek ñëw nga teew ci bis bi ak ku ñëwul te am yéene ñëw ak képp koo xam ne génne nga sa ñaq ak sa temps def ci fa tabarakallahu ñu lay ndokkeel di la ñaanal fa tabarakallahu di nuyu di ziyaare ñëpp fa tabarakallahu su ko defee ñu jox mbokk yi ci des rek ñu ñëw incha allah jërëjëf macha allah ci nuyu bu motale boobu sëriñ Mouhamad Ba tabarakallahu ki nekk ci suñu càmmoñ di euh, sëriñ Mourtada moom itam di borom xam-xam bokk ci njabootu suñu maam Cheikh Al Khadim radiyallahu taala bu ko defee moom itam ñu jox ko kàddu gi moom itam mu nuyoo moom itam dalal ay ganam ndax fii kat moom du fi gan mooy borom kër gi macha allah sëriñ Murtada ñu ngi lay ziyaara di la nuyu. أعوذ بالله alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala man la nabiya bahd wa ala alihi wa ashaabihi wa taabiina lahum bi ihsaan ila yawmi din bokki jullit yi fi teew ñu ngi leen di nuyu nuyu ba gën a matale te gën a tedd leen wax asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu di jiital ci nuyoo bi sunu sang yu tedd yenu bàyyi ca Sénégal muy sunu wasila Cheikh Mouhamadul Muntaqa ibnu Cheikh Abdul Bachir di xalifa Sëriñ Tuuba tey ci kaw suuf di ñaan sunu borom yàggal ko fi tam ànd ko wér loolu di ko ñaanal mbooleem taalibe yépp waaye di ko ñaan bu baax suñu kilifa suñu wasila da ca tiwaawam muy sëriñ may si Mansour di ñaan suñu boroom eh, yan bi nga ko jox yàlla na ko mottale ci sagoom ak mboolem taalibe yi nga xamante ni bii ànd nañ ko ak moom di siyaare bu baax sëriñ Mouhamadou Ba bi nga xamante ni bii mooy njiitul daayira bu maam Alhaaji Malick bi nekk fii ci Argentine di jëmm yoo xamante ne bii ku baax la ku yaru ku mën jiite mbooloo ndax mbooloo dafa am nañ koy jiite suñu borom dimbali ko ba ni nga xamante ni noonu ngay jiito ko borom topp sa ginnaaw déggal la suñu borom dimbali ko te ak yar ak i teggin am xam waxin xam defin xam mu ngi jëflante mbooloo ngi ñaan mbooloo mi topp sa ginnaaw yar na yàgg ànd ak yow ci jotaay yàlla ko yàgg teewe bu baax mbooleem ñi nga xamante ne dañoo toogoon ak ñoom ci plateau bi nga xamante ni bii ñu ngi koy waaj a tàmbali te bi jëm ci jàmm di nuyu bu baax it mboolem murit yi nga xamante ni bii ñu ngi fi teew ci samay mbokki taalibe di ci jiitalu sëriñ maam Thierno Amar suñu rakk sëriñ maam Thierno ñaan ak mboolem ñi nga xamante ni bii ñu ngi fi sëriñ Moussa yi ñu ngi leen di siyaar bu baax di jën nuyoo bi di ko teg seeni loxo leen jàllale ni ko mboolem taalibe suñu ci waaye nekk fii di nuyu ñëpp nag di wax salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. waaleykum jërëjëf ci nuyoo am solo yooyu macha allah xam naa ne eh, ñu ñëw rek ci ki nekk suñu ndeyjoor tabarakallahu muy sëriñ Baye Guèye di njabootu suñu maam suñu maam Alxaaji eh, maam Khalifa Niass macha allah teewal fi képp koo xam ne rek njaboot nga ci njabootu maam Alxaaji Ibrahima Niass bu ko defee rek moom dañ koy jox moom itam mu nuyoo eh, jot li ay nuyoo moom itam lu fi gan comme ni ma waxee léegi sëriñ Moutala rek moom. ci këram la ñëw moom itam day dalal ay ganam macha allah sëriñ bi ñu ngi lay nuyu di ziar alhamdulillah alhamdulillah rabbil alamin arrahmani rahim maliki yawmi ddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina sirata almustaqima sirata allazina an'amta alayhim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم يا هيبة الشيخ الفكر في هذا المحضر وتعطيه بهذه الباقي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله mbokk yi jullit yi mbokki taalibe yi mbokki si yàlla ñu ngi nii kenn ku ne si turam ak jëmmam di leen ziyaara di leen ndokkee bu baax si guddi gi ak di ziyaara mboolem suñu xalifa yi nga xam ne ñu ngi nekk Sénégal ñi nga xam ne ñoo nekk ci diwaanu Tivaouane ak ñu nekk ci diwaanu Touba ak su nekk ci diwaanu Kaolack ak fépp fu waay mën a nekk nga xam ne xalifa nga rek mu lay waaye di barkeel mboolem ñi nga xam ne ñu si jotaay bii nga xam ne dara taxaw ñu ñëw si jotaay bi lu lan bëgg yëg ñu sallallahu alayhi wa sallam dara taxaw ñëw si jotaay bi lu lan jëriñu si yéen ñu sallallahu alayhi wa sallam ndax dañuy wax ne fépp fi ñu tuddee woon yàlla yi rek xéwal yàlla day wàcc rawatina ñi nga xam ne moom moo tax yàlla bi ñu àndal ñëpp kon ñu fi teew ñëpp bëgg ko moo tax ñu teew kon ñu leen nii ñu leen di ziar di leen dokke bu baax waaye di ne ñooy samay mbokk taalibe yi nga ne ñoo bokk Mawlana Cheikh Ibrahima radiyallahu anhu nga ne ñoom euh, néew nañ fi bëri nañ fi waaye comme ni ko waxee ñëpp ñoo bokk ne ñëpp ñu leen nii waa di ziara mboolem ñi nga xam ne ñoo toog a si plateau bi di leen dokkee bu baax ñaan yàlla lépp loo xam ne commencé nañ ko yàlla def ñu mottali ko si alhamdulilahi rabbil alamin te lépp ànd ak tawfiq ànd ak teesir yàlla na ànd si barke bi sallallahu alayhi wa sallam asalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullah allahuma amin yàlla yàlla nangu ñaan yi ko defee rek dañuy jox itam Serigne Moustapha Dieng nekkal fi waa kër ci Abdul Xaadir Jeylaani bokk itam ci waa kër Cheikh Saad bu Nimsa macha allah bu ko defee ñu jox ko moom mu nuyu mbokk yi nga ne tabaarakallah ñoo nekk ci jotaay bi wala ci waxtaan bi. bismillaahi rahmaani rahiim maa ngi sant bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi rafetlu yow dëgg yàlla rafetlu jotaay bi am na solo trop di nuyu ñëpp képp fi nekk ñu di jaarale nuyoo bi ci suñu wasila suñu yaakaar tey ak ëllëg Cheikh na Cheikh Saad Bouh di sëb yéen yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu war a tudd ji tey ak bis bii ñu daan woote ñaar ñu dafay sax xaw a bett waaye ñu ngi ñaan daal ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñaan ci suñu barke wasila suñu yaakaar Cheikh na Cheikh Dramé yàlla yàlla defal ñëpp jàmm yàlla yàlla defal ñëpp tawféex ci barke bi sallallahu alayhi wa sallam mën na mën a waxtu moo rek waaye ñu ngi ziar ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatuh tabarakallahu macha allah jërëjëf yàlla yàlla fay bu ko defee rek ci ku ñuy mujjee mooy Serigne As Serigne Abdoul Aziz Sène di doom ci wëndu yàlla bu mag boobu suñu bàyyi bu xujja seen tabaarakallaahu muy jàmbaar moom itam nekk ci dëkk bi ah, fépp foo xam ne ñu ngi fay taxawee diine lu mel ni ay wàccikaam yi tabaarakallaahu ak jumaa ji mu posté fa ci lool tabaarakallaahu mu koy nuyu moom itam di ko jox wàccuwaayam ah di wax sëriñ bi asalaamaaleykum wa rahmatullah أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله وسلم على نبينا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu waaleykum salaam wa rahmatulah fay leen nuyu waaleykum salaam wa rahmatulah waaw kay du jàmm lan woote mhm. tey dal ne thème bi mooy jàmm mhm. bu nuyoo ci jàmm lan nu fayaat ci jàmm asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. ok ñu ngi ndokkee ñëpp di ziar ñëpp di baal àq ñëpp te du baal àq ñëpp wa tabaarakallaahu lu ñu fi tax a dajale mooy mawlid nabi sallallahu alayhi wa sallam ci weer wi ci ayu bésu ci semaine bi ba ci bés bi tay bu yàlla defee nit ñëpp ñu dajaloo fi di sàkku leen muy jàmm ak yiw ñu dajaloo fi pour waxtaane thème loolu lu rëy la mbokk yi fatabaarakallahu loolu lu rëy la duñ gaaw a dugg ci thème bi dañ doon nuyoo rek fatabaarakallahu nuyoo ñun bokkal plateau yi nuyu suñu turandoo ji nga xam ne mooy Abdoulaye Sène mu woote lii fatabaarakallahu ak ñu bànneel yépp kon mbokk yi allah ba ci kanam ñu dugg ci waxtaan bisimilah. ah tabaarakallaahu ñooñu am na solo ñu ngi eh, ñaaral leen yàlla yàlla yàlla yaatal seen dënn ba tabaarakallaahu li ngeen bëgg a wax nit ñi yàlla may leen ñoom itam fahmu ak taam muy dégg ak topp ba tabaarakallaahu lu ñu guddee lu ñu guddal ndax ku guddee doo guddal bu ko defee rek dañuy def direct rek ci thème bi dañuy def direct ci thème bi thème bi jàmm la. jàmm nag sallallahu alayhi gannaaw suñu borom subhanahu wa taala yonent bi sallallahu alayhi wa daf ñoo digal jàmm daf ñoo digal jàmm te il faut bala ñoo mën a am lu ñu bëgg rek dañoo am jàmm yonent bi sallallahu alayhi wa laa tadxulul jannata xataa tuminu wala tuminu xataa taabu gaa yi ne mu ne kenn dugg aljanna te te gëmmoo yàlla bëggantewu leen mu ne yonent ay laaj ko ne ko yonent bi sallallahu loolu ñu digal mu ne euh, isa faaltum tahabbabtum mu ne ahsu bi salaam mu ne day leen day leen siiwal jàmm jàmm jooju nag moo ñu fi tax a daje tey dañuy njëkk a jox nag kàddu bi euh, al oustaz Serigne bu ko defee moom mu développé li mu bëgg a wax naan ci wàllu jàmm bu ko defee rek euh, ñu toppale ko rek ba jotaay bi àgg incha allah Serigne Mourtala ah kàddu gaa ngi doon macha allah. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نحمد وإياك نستعين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 mooy bisu bu gën di mbindéef bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye di bis la boo xamante ni bii bis bu képp ku di ak jullit war di ko fàttaliku war di ko taxawee war di ko teewee ci mbooleem fu ñu ko mën di defee jotaay bi nag jotaayu islam la kon dañuy ñaan mbokk di wax nga sikra saalihiina tanzilu rahma muy jotaay bu yàlla gërëm di jotaay bu yàlla nangu suñuy jëf waaye di jotaay boo xam te képp koo xam ne indi nga ni ràpp ko yàlla na suñu borom saafara. amiin képp koo xam indi nga ni ràpp ràpp ko yàlla na suñu borom saafara. ku fi indi jàng yàlla na ko yàlla saafara. ki koy defal mën na ko te na ko. te ñun ak yow ko bu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon yàlla na ko bu baax ci invitation bi nga xam ne nag jox nañu ko muy ab cër ñu rafetlu ko lool ndax ñaari kër yi dañu ñaar benn la muy diggante murit ak tijaan ñu day aslo muy cosaan la day xàjjale ay benn loo xam ne cosaan moom lu ma wax lu xàjjale bu ñu daal it bokk li bokk na ay jullit rek dañoo war a tax ñu a booloo booloo nag la koy indi mooy ba nga doxale fitna suñu biir parce que fitna amul rek jàmm maanaam kon jàmm ñoo jëlee ba mooy jàmm jàmm mooy li nga xamante ne nit ki saa su ko ñàkkee lu taw stabilité ci jëmmi boppam mooy jàmm nit ki saa su tawatee amatul jàmm ci boppam kon la muy ñaan mooy yàlla naa wér ak jàmm kon jàmm mooy li nga xamante ne bii kenn ku nekk war na koy sàpp ci moroomu jullitam ci moroomam taalibe ci moroomam ki na xam ne dañoo bokk ay jëmwaay jàmm jooju nag bu ñu ko wootee tey mbooloo mii teew te lépp day jullit ndax bu ñu wax xàtte ni seetee moo demee waaye ñu lépp day jullit kon war nañ cee développé loo xamante ne bii dinañu jëriñ kenn ku ne ci njëriñ bi nag moo xam nga génn jëfe ko moo xam nga bañ koo jëfe waaye yéen thème bii ngeen def dafa nekk thème boo xam ne nii thème bu am am solo ñu rafetlu ko bu baax ndax ni ngeen ko def fii noonu ko defee Sénégal ndax bi mu tàmbalee ba léegi may kon li ngeen woote euh, woote la boo xamante ne bii képp ku di jullit war na ko woote ndax jàmm jooju li nga xam te ne Seydina Aliou waxoon na ko ni yéen dina ko ci yéen sallallahu alayhi wa sallam mu wax ne innal fitnatan waaqi'atun fii bilaadillah laa yaqdiru li ahadin an yuhsaha waylun liman axasa bi kitaabiha mu ne fitna de dafay nekk ci kaw pays suñu borom subhaanahu wa taala yi mel ne ku ak juróom sàmm dana ku ne xam ne nag booy sàmm dana gën a yitteel mooy fa am neex gën a bàyyi bi max li mu ci mooy fitna. seytaane da koy wokk nag di ko jëme ci ay mbooloo di ko jëmee foo xamante ni bii lislaam dafay bëgg a taxaw lislaam dafay am doole suñu borom nag di ko di ko jëme mbooloo kon fitna lu mat a teel ndax mooy ñàkk a waral jàmm yàlla te képp koo xamante ni bii suñu borom dogal na ngay nitul fitna doo am jëmmi adduna doo dem àll dem am dem àll te suñu borom nag it ba tax foofu ñu tamit daa toujours ba nga dañu ne sànq ba lépp presque damaa mos a dégg benn borom xam-xam bu ko saraa dàq ni aaya boobu suñu borom ci misaal ñu ko mën a dégg mu ne dafa amoon koo xamante ne dana jàppante jabal ci mala yi muy jàppanteeg aw mala maanaam boo ni ko tuddee mooy boo xam ne ab sindax la doon jàppanteeg soxnaam nekk ci kudub néeg néeg bi am ñax borom néeg bi ci ab pajaas fii ko jàkk na muy fer muy retaan bu wàcc ne ko damaa bëgg nga boole ma sama soxla ndax ni ngi mu génn daal di tasee aw nag mu ne ko nag damaa bëgg nga boole ma sama soxla yu jàppal mu ne ko nag ca nag ya si ndax de mu dem ca mbaama ko mbaama ko la mu ne désuwaat daal di attaqué soxla si jàppante moom xeex ba wadde ci ab ab ab ànd ndekete ay xale la ca woon xale ya war jàppal ba jàpp fekk borom ne ko jàpp teg na la laata bi xam ne nit ba ngi jàpp muy bërbëri yëf ya wàcc sa kaw la fa yem kon fitna dem doon bañ aar dikkal na ko moom bi ñu génnee ko ba denc ko pare ñu xool ne weeru nag rek moo fa am nag moom génn ko jàpp ko rek du ko jëlee bi ñu xoolee amuñu fu mu taxawee wax dañuy jàpp mbaa moom mais takk ko observé dem taxaw na ko kon gën jël gën gën jël fi dundoo kon fitna lu mar daw ndax ñoom ñëpp kenn gënu ci kam ko njëkk a wax gënu ci ndax faatu na ca nàkk waaye ci lañ ko reyee dañu ko def mbàmbale takku téléphone yi ay ay ay say mag yi ko mag ko def kon kenn gënu ci kon bi nga xamante ne suñu borom bi nga wax ne sallallahu alayhi wa sallam jamono yi nga xamante ne ñu ngi dégg tijji ay nga xam ne réew mu dem ba dijj ko bu demee ba not leen dañuy sàkk li nga sonn mooy fexe ba dëppoo moom ci ay accord ba deret bay tuur suñu wax ko ne kon in janaaw li salmi fajnah lahaa wa ci yow sonn te mooy fexe ba dëppoo ci deret nag na nga àndal ñoom te wakkil ci yàlla kon suñu moo gën a njëkk bëgg jàmm ndax wallaahu yahdi ilaa daari salaam suñu borom day woote jëm ci jàmm ndax li mu bëgg jàmm mooy bu tàbbi àjjana mu doy àjjana am jàmm seytaane li mu bëgg woon inna maa yatlubu hizbahu liyakuna min ashabil sa'ir moom li mu bëgg mooy fitna lay bëgg saa su nekk kon doomu a yeewoo xam li ko mën a jëriñ ci te li ko mën a jëriñ ci àllaxira bokkul ci adduna ji ngay nga dund fi ak dal dund fi ak dund fi ak jàmm ak mboolem mbir yi ko nekkal loolu dina bokk ci nit ki ndax li seen ali waxoon ni nit ñi ñuy gërante ci xam-xam ak ki lu ko bëri waaye borom xam-xam suñu ne ci dignité ki ko mën a dimbali mooy ki nga xam na ko ak muy borom xam-xam mu di ko dimbali waaye ci kaw dimbali boobu dafa nangu war a déglu li koy wax te di ko ndax kenn ci neen ku nekk ci ñun amu kenn koo xam ne bëgg nga bëri nga nekk ab te ku nekk ak sa ñaari kër kattan te képp koo xam ne yaa ngi bëgg nga ba fàtte ma àjjana àjjana la ko fa da nga xam kon jàmm doomu aadama bu nekk war nay sàkku lan moo koy may bu xëyee war na ci dox bu gontee war a jot bu tëdd ci am ne war nay xalaat jàmm lan moo koy may ndax boo génnoon ci mbedd mi toog yor say balaa am bu la fa police fekkee jël say balaa ramassé amatoo jàmm say mbokk bala ñuy am jàmm dinaa fekk foofu la jënd yóbbu su boobaa yow soog am jàmm kon jàmm lu mën a sàkk la ak imam Aliou mos naa wax benn ànd boo xam ne dafa wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci la ko jëlee woon mu wax ni wala tadfamu suma damaa indee ka àndu wala laahi diine reddal إن في سنة إراحة لجنوبك وراحة من عمومك nekk koo xamante ni bii da ngaa jàppante woon a moom wala nga xuloo ko déedéet nit saa su duggee jëm si ci yow di sàkku ci yow jàmm da war a am lan moom ci jàmm yooyu ndax sàkk doo ngay ci yow ak nanga ko war a nangu ngërëmu yàlla ci tamit waaye nit ki bu fekkee ne dañ sàkk yow jàmm bu teenal bu ci kaw na bàyyi mu yoroon àndaat ak moom ci jàmm ndax su boobaa su fekkee yi nga xamante ni bi ñoo lay jàppale mën naa am ñu faatu de wala ñu gaañ su su boobaa tamit réew mi nga xam te rek ñoo defee lan lay jural da koy ak ñàkk jural ak pauvreté jural ak ñëpp jàpp mu ne kon nit ki saa su jógee ngir sàkku jàmm ci yow bu accès ak loo ko mën a jàppal da ngaa borom bàyyi lépp te yàlla rek tax nga ànd ak moom jàppale ko ci jàmm jooju mu sàkku ci yow ndax nit ki ñaare sax di nga sëq ak moom fitna yoo xam te ne bii sa diggante moom la waaye bis bu ne demee ba jubóowaat da ngay gis ne gerte loo sa diggante moom ba jàmm rek nga am loolu benn dootu demati nga xam ne kon diggante boobu jàmm jooju noonu nga am boo ko sàkkoon ci njàlbéen nga du ngeen am benn jafe-jafe ba ngeen ci am kon jàmm lu mat a sàkku la lu mat a ak lu mat a lu mat a wut la ndax euh, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam boo xam ne dina ma di wax ni inni alamtu zulman baynakum fala tasalu bu wax ni loolu ci hadiisul qudsi bu wax ni suñu borom dafa araamal tooñ ci boppam moom waaye araamal ko suñu diggante la ndax tooñ mooy indi fitna te fitna bu amee jàmm amatul suñu borom araamal ko ci suñuy diggante araamal ko ci ci ak suñu diggante kon suñu borom moom ñu sax bu ñu toll waaye ñun ci suñu di tegante ay fitna di tegante loo xamante bii képp koo xamante ne bii teg na sa mooy lu ñaaw kon loolu lu mat ndax jàmm nit ku nekk doomu aadama ku nekk saa su nekk bu jugee ngir di wuti la mooy ñaan mooy jàmm dem ci jàmm dellusiwaat jàmm. bañ nga ko booy tukki di dem suñu réew da ngay ñaan suñu borom yàlla naa dem ci jàmm àgg ci jàmm dellusiwaat ci jàmm fekkaat ci jàmm kon jàmm mooy am solo lu am solo ndax nit ki saa su nit ak yow doon buy sifale wala muy wàcc doon suuf si ngay dem yaa ngi tiit te boo wàccee ba nekk si jàmm fàtte nga suñu borom bi nga xam te ne moo la téye loolu lool defal na ci jàmm da ngay nekk ci biir gànnaaw waaye boo wàccee fàtte ko yaa ngi nekk ca leneen kon nañu bàyyi xel ci loolu jàmm jooju Sëriñ Tuubaa mi nga xamante ne nii moo suñu yaakaar waroon wa axfina yaa rabbana bil xidmati muslimina kuy ñaan suñu borom maa ngi koy yow yàlla maa ngi lay ñaan yàlla nga ma defal may liggéey jàll ko ku ne xam ne jàmm bëgg na ko ku ne xam ne ni jàmm bëgg na ko jàmm rek léegi ana lan mooy jàmm loolu mënul ndax su fekkoon ne aw ay ñoroon na moom ci boppam amoon na jamono yoo xam ne mënoon naa indi fitna digganteeg ñoom seqaloon waaye defu ci dara da nga xam ne jàmm mooy li njëkk na woon nit ñi ndax alhamdulilah dëgg mooy sax mooy mooy mooy li mu bàyyi woon lépp waaye di ñaan suñu borom subhanahu wa taala suñu borom defal ko muy liggéeyal jaam ñi ci kaw suuf te loolu dafa nekk ko ndax waxoon na ko ne Moustapha Mayou Mayou Diop sunatul xataa bi am ci la nekkoon di ko biddee te mooy fi nekk nii kon mooy loo xam ne jaam bu nekk ci kaw suuf di dund war ngaa sàkku ci kaw suuf loo xam ne bi boo dee dund ba wan nit ñi ginnaaw ñu koo seede ci yow te mu rafet ndax diwal la dana dem waaye ku bari fitna lu mat a moytal waaye diwal la dem ku yar la ku teel ku xam waxi la lu mat a bàyyi xel la tamit ndax jamono dafa toll boo xam te ni am réew lañu nekk moo xam te ni bi dëkkuñu fi te ko amoon la la gën a dëkk seen réew ngay toll ñun ñëpp la kenn amatu la la gën a ndax kenn amatu la day ba tax ba tuuti la ku am la la gën a seen réew ngay toll kon nañ fi sàkku jàmm te ànd koog ñi nga xam te ni ñoo ci réew mi tey ñaan ci réew mi jàmm ndax bu réew am jàmm la am jàmm ndax ñu ngi ci biir ndax bu ñu doon tànk bu ci génn ndax ñu ngi ci génn ñu te suñu teraanga fee nekk kon bu ñuy ñaan ci suñu jëmm bopp waaye nag ñaan naa leen am jàmm ndax cee bokk kon dañuy bañ a guddal ndax waxtu wi day xat nañ ko jëmale foofu rek asalaamaaleykum wa taala wa barakatu ah macha allah eh, Serigne Mourtada ahsan nga ak malta rafetal nga matal nga macha allah yàlla nañu yàlla defal dégg ak topp tabaarakallaahu comme mbokk yi dañoo wax ne waxtu bi dafa xaw gàtt ndax programme bi ren li ci nekk dafa bari te ñi sant fay ñu ngi toog di xaar tabaarakallaahu xéwal bu ko defee rek ñu def rek xam sa xam sa xasara daqaay incha allah bu ko defee rek ñu euh, mën a gàttal jotaay bi allah. suñu bàyyi eh, kàddu gaa ngi noonu alhamdulillahi rabbil alamin allahumma salli ala sayyidina muhammadin alfaatihi lima ughliqa wal xaatimi lima sabaqa naasiril haqqi bil haqqi wal haadi ila siraatika al mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaarihi assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuh waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. di nuyuwaat mbooloo bi yëpp beneen yoon ndax comme dañoo woote ne jàmm di si waxtaanee kon dañuy wax di nuyu saa su ne ngir jàmm mën a nekk si ñun ndax saxaaba yi nga xam ne ñu amoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu dajeewaan kenn ku ne yàkkamti mu nuyu moroomam lu waral loolu ngir bëgg jàmm nekk ci ñoom jàmm sax ci ñoom te ku ne xam na ne asalaam way jàmm kon bu ñu leen ñaanalee nuyu leen ñaanal leen jàmm ak yërmande waxtu bu nekk kon loolu dafay sax suñu lay nekk suñu ko moo ñuy jëriñ ndax yéen bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne laa yéen mën hatta yuhibbu li axiihi maa yuhibbu li nafsihi te du ko dëgg dëgg lu da nga maa bëgg da ngaa bëgg la nga bëggal sa bopp nga bëgg sa morom kenn ku ne lu bëggal boppam bu ko bëggee bëggalee moromam rek jàmm lay jur te kenn ku ne lu bëgg mooy lan nekk ci jàmm am teraanga am lu nekk. loolu la bëgg kon bu ko bëggalee moroom ñaanal ko moromam rek moom ñaanal ko ko rek jàmm day daal di te bu ñu bëggee jàmm ñëw dëgg dëgg fa muy delluwaat si li nga xam ne moom la ñu gis sallallahu alayhi wa sallam indi muy alquran ak sunna fekk ñu ngi bàyyi alquran bàyyi sunna rek jàmm ñu waaye dëgg dëgg jàmm ñu ngi fa muy delluwaat si alquran. dellu si sunna lépp lépp ci sallallahu alayhi nekk si nekk ci téye alxuraan yi xam ne eh, yàlla nee na bàyyiwul dara ci përëm si alxuraan ji kon buñ delloo si alxuraan rek jàmm lay ñëw alxuraan mooy lan mooy lu sell mooy leer waxtu bu nekk boo ko setalee leeral ko rek yéen ñi jàmm rek jàmm leen tasaaroo sa adduna bi Mawlana Cheikh Ibrahima radiyallahu dafa wax ne mu ne su fekkoon kenn ku ne li la war yaa koy def rek lépp jàmm lay doon kenn doon kenn du am lenn lu dul si jàmm rek ngay nekk waaye kenn ku ne su fekkee ne yaa ngi nekk si lu wuuteeg li nga xam ne moom la la yàlla digal wala li nga xam ne moom la yàlla Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam indi rek jàmm du daal yéen a sën wax nañu ne kenn ku nekk jullit dëgg-dëgg lu ne eh, da nga da nga da nga da da ngeen a bëggante dooloo kenn sa loxo dooloo kenn sa làmmiñ nit ki su fekkee loolu kenn sa loxoom loolu kenn sa làmmiñam dara nekk si jàmm te dana ñaan ñu jàmm comme ni ko suñu mbokk yi waxee léegi. kenn ku ne ak ñi nit ñi ñooy seen mbokk leen ne lu nekk ak ak kon ku nekk ak say mbokk ñun ñoo ñooy ay mbokk ñun ñoo xam ne ay doomu aadama lañ te yàlla dafa bind doomu aadama si melokaan boo xam ne melokaan yi boppam la ko bindee inna llaaha xalaqa aadama ala suurati kon doomu aadama bu ñàkk bopp fayda ba tax ñuy ñuy bañante wala tax ñuy yëgante loo xamante ni fekk loolu di lu baax du lu rafet comme yàlla dafay bind si bind bu rafet bind melokaan boo xamante ni dara gënu koo rafet wallaay kon nañu rafetal sellal xol yi leeral xol yi alquran ñëw na fi ne yaa ayyuhaa lazina amanu duxuulu fi salmi kaafatan wala tattabiu xutuwaati shaytaan ñi nga xam ne ñoo gëm yàlla te ñëpp nit nekk si jàmm dugg si jàmm joo xamante ni buñ ko defee rek te bañ a topp seytaane ay pexam ak ay ay eh, ndigalam ko defee rek jàmm day ñoom parce que seytaane nag mel ni jàmm waaye seytaane fan lay si bakkan bi. nafsu amaaratu bisuu'i fekk bakkan bi ñu nga ànd ak moom di gis ne ñii ñooy ñii def parce que dañoo war a am lii kii warta am lii parce que damaa war a def lii kii warta def lii boobaa bi ñu waaye leen nag suñu bakkan yi xam ne ñoo bokk ñu bind si aadama ñëpp ñu bokk aadama bind si xawaa ñëpp ñu bokk xawaa kon ñu feeñee si àdduna dellu si alquran ak sunna rek jàmm day daal di ñëw te ku ne xam ne lu jiitu diin bi ñëw si ay fitne rek lañu nekkoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ñëw indi jàmm joo xamante ni dara melu ni mu kon dara war a suñu lu dul ne ñu bëggante ngir yàlla déppalante ngir yàlla jëriñante ngir yàlla di toogante ngir yàlla lépp koo képp koo xamante ni man nga lu sa morom marul nga dimbale ngir yàlla rek tax jëmu yàlla nga xam ne boo ko defee defaloo kenn yaa ngi defal sa bopp parce que duñ jëm doomu aadama doomu aadama rek doomu aadama doomu aadama rek waaye su fekkee amee eh, jikkoo boo xamante ni jikkoo seetaane la souvent fitna day ñëw parce que seetaane rek mooy indi fitna waaye yàlla yàlla mos si jikko yooyu noonu kon dëgg-dëgg jàmm. mooy lan fu ñu mënta nekk nañuy bëggante fu ñu mënta nekk nañuy bëggante te bañ a xool ne kii fi la bokk wala kii faa la bokk fekk loolu mi ngi am dootu ay jullit leen nañ bëggante parce jullit rek mooy mooy mooy li nga xam ne moom la yàlla gërëm parce njëkk ngay nekk leneen foog nga nekk jullit ba pare boo neewoo jullit mënoo nekk leneen boo nekkul jullit mënoo nekk leneen te jullit jullit mooy mbokkam te comme jullit jullit mooy mbokkam nag dara waru si jullit ñu lut nan ñu bëggante ngir yàlla jàmm am dimbalante ngir yàlla jàmm mën am te jàmm dafa nekk loo xam ne bu amee adduna bi yëpp déwén boo gisee guerre am yëpp xeex yi am yëpp xam lu ko waraloon bëgg kii war naa jël euh, suufam si kii war naa jël liyam kii war naa jël liyam si nga yooyu nga xamante ni nit ki mu koy def si xolam bi di koy def si xelal bi mooy def ba jàmm du ñëw nga ne kon kii foog mu xeexe moom pour jël lii parce que man maa ko war a moom wala kii war am lii man maa war a am lii xeex moom jàmm jàpp jàmm jàmm du am waaye féeg nit ñi xam ne ay jullit leen ñu ànd nekk benn fekk ñu ngi koy def jàmm day ñëw waaye fekk ñu ko tasaaroo rek du ñu am doole jullit ñi jamono bu njëkk ñoo amoon doole bi yàlla ko yàlla joxoon leen doole ñu nekk si jàmm lu ñu bëgg rek man koo def man koo def dañoo àndoon nekk benn dañoo àndoon nekk benn kenn ku ne sëñ naa aw sëñ naa Omar wax su bëri jàng kenn saaba yi dafay yàkkamti nuyu la ree kontaan saa foo ante yow ka dañu wax ne ñaar fu ñu dajee saafuwante ba kenn ku ne kontaan jàmm day am waaye luñ ñaan la luñ ñaan lant yàlla rek yàlla daf koy nangu lépp luñ ñaan lant yàlla rek yàlla daf koy nangu parce que kenn ku ne kontaan na te yàlla xol lay yàlla xol lay si doomu aadama xadis ñëw na si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu na nëbb bu nekk si doomu aadama bu baaxee jëm jëpp baax waaye bu yàqoo jëm jëpp yàq te jëm ji yàq nag mooy war a indi bañante am ñu ne ko yéen mooy lan mu ne xol alaa wa hiya alxalb kon nañu rafetal suñu xol nañu sellal suñu xol nañu leeral suñu xol bëggante moo ñuy jëriñ te delluwaat si alquran ak sunna maa ngi jéggi si bamtuwaat mais bamtuwaat ndaxte loolu rek mooy tax ñu am jàmm lu yàlla digle ñu nekk si lépp yàlla tere ñu daw ko te ñu jëriñante ngir jëm yàlla ci waaye buñ xool leneen buñ gis leneen fekk ñu nekk si loolu ñu nekk si jàmm suñu mag ñu baax ñu tax ñoom ñoom ñu nekkoon si jàmm tranquille yëpp dañoo àndoon nekk benn dimbalante ngir yàlla di ziarwante ngir yàlla di jàmm bi jëriñante ngir yàlla kon ñu ngeen delluwaat si loolu kon thème bii thème la boo xamante ni thème am solo thème bu yaatu la thème ndax mooy tax ñun ñëpp am nañu bëgg atta réew mi buñ am comme ko suñu mbokk mi waxee léegi bu réew amul jàmm du ñu am jàmm kon waxtu bi dañ ñaan yàlla yàlla def jàmm si réew mi daf ko ci mboolem réew jullit waaye nag bu ñuy ñaan yàlla te suñ xolite nii rek sellal nañ ko dañuy sonn si ñaan yàlla waaye yàlla du ñu du ñu sonn dëgg yàlla xol bi lay xool kon dañuy sellal suñu xol yi dañuy set leeral suñu xol yi te waxtu bi dañuy ñaan yàlla yàlla suñu jàmm daf ko si réew mi daf ko si réew mi te fuñ toll nag dañuy nuyuwaat xam nga dañoo tàmbali nuyoo nuyoo xam ne salaamaaleykum salaamaaleykum du ñaan du jàmm ñu ko tàmm trop du benn. bii dafay bii miim te bii ayn la kon dañu moytu ñu ko loolu bu baax asalaamaaleykum ak salaamaaleykum du te ñun ñoo tàmm nuyoo salaamaaleykum dañu moytu ñu ko loolu salaamaaleykum yàlla na ñaan nit ki ñàkk xëy nekk si moom bu mu nekk si jàmm moom mu delloo la ko yónni maaleykum salaam kon salaamualeykum waaleykum salaam yaa ngi ko ñaanal jàmm ak. yërmaan nekk si yow moom te mu delloo la loolu kon loolu dañ koy bàyyi xel bu baax parce que dama yu sew sew yoo xamante ni am na ñu bëri ko duñ koy bàyyi xel te yéen sallallahu alayhi wa sallam lépp dafa leer wa maa arsalnaaka illaa rahmatan lil aalamiin yërmaan da la ñeel mboolem jullit ñi yërmaan nag fu muy nekk mooy foo xamante ni jàmm dafa am parce que jàmm amul pour yërmaan dañ nekk fa lay jafe trop kon yàlla yàlla dimbale bu baax bañ na si jàmm ñëpp yàlla def ko si mboolem ñu leen yàlla dimbali ñu si zahir dimbali ñu si baatin yàlla dimbali ñu si zahir dimbali ñu si baatin dimbali mboolem jullit ak fu ñu mën a nekk si aalam bi bépp jafe-jafe yu jullit jàppante yàlla yàlla teg ñu lépp ñëpp nekk si jàmm delluwaat si li nga xamante ne ñëpp dañu àndoo nekk benn ba nga xam ne dañu mën a am luñ bëgg si dañu mën a am luñ bëgg si àllaaxira loolu lañ ñaan yàlla yàlla defal ñu ko di sant ñëpp di gërëm ñëpp di sant mboolem ñu nekk si plateau bi wa maa zaalika alaa Allaahi bi aziiz wa salaamu aleykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh waa action bi dañoo taxaw euh, ci yenn xeetu kii yi tabaarakallaahu kon euh, comme ñaari kilifa yi moom ñoom ñoo daral gan yi muy sëriñ As ak sëriñ Mouhamadou Ba dañuy jox kàddu gi rek euh, sëriñ Moustapha bu ko defee moom mu wax moom itam ci kenn bi macha allah bu doon juróomi minute la itam tabaarakallaahu bu ko defee sëriñ As ak sëriñ Mouhamadou Ba ñu bàyyi ba ñu kii ba pare rek ndax gaa dañoo kii kii ba kii. ba pare moo tax incha allah ñu jox rek euh, sëriñ bi waxal rek bu dee ñaari minute sax incha allah bu ko defee ñu doog a kii. yàlla Muhammad sallallahu trop ndax jàmm ci lépp xaj ndax comme ni ko suñu sëriñ bi waxee euh, euh, mooy bu ko amul doo dund jàmm tamit bu ko amul doo doon nekk bay def bala def dara kon ñu ngi ñaan yàlla daal yàlla dafa mu jàmm ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa comme ko gars yi waxee dañu gën a góorgóorlu bu baax a baax a baax xam nga tamit dëkk bi ñu nekk dëkk bi fii dëkk jàmm la ñu ngi ñaan yàlla daal ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax lu ñaan moom mu wax si borom ñaan ci barke yonent ni ko wóolu yàlla di ak xutbi ak xawli nga xam ne ñoom ñëpp jàmm lañ bëgg yàlla nañ ko yàlla defal ci barke yonent bi suñu seen cheikh na cheikh Abdou ci wax lu am solo ndax jàmm moom daf ko sàkku ci lépp mhm. kon yàlla nañu yàlla defal jàmm ci barke yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax bis bi rek jàmm la ndax bis yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam loolu am solo la ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañuy wala Muhammad maa xalaqtu shay'an. Mhm. ñu boole Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla ko bind dara dara dara dara yàlla du ko bind. kon yal na yàlla defal jàmm ci bis bi daal mu fas ci ñun ñëpp ñëpp jullit képp ku fi nekk na fas ci bis bi daal nga xam ne bis bi àq na lépp ndax bis bi moom mooy lépp ndax yéen yàlla Muhammad mooy dynamo central bi ñëpp dañoo yor ay prises ak di branché mais moom mooy daj dëpp yi Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon ñun ñëpp nañu raxas xol yi yaatal ko te ñaan yàlla tey ci bis bi ndax tey jii bu ñaan yàlla rek incha allahu taala yàlla ñoo ko fay ndax bis bi àttan na lépp wallaahi àttan na lépp ndax Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lépp la àttan waaw ñu Cheikh Cheikh Samb rek di ko wax ni yow ni ko yaa mën keral nisbatuna ila rasul li tax tax yi wàcc wala tax ñu juur waaw kon moom mu nekk doomu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ñu teewal ko fi comme ñu chérif moom Cheikh Cheikh Samb kon ñu ngi ñaan daal yàlla suñu barkeel bi sallallahu alayhi wa sallam bis bi yàlla ñu yàlla defal jàmm defal ñu jàmm ci dëkk bi defal ñu fi sutura defal ñu lépp luy ut daal ci dëkk bi yàlla defal ñu ko defal ko suñu Sénégal tamit ñëpp macha allah defal ko julli yëpp ci barkeel bi def ko ci àdduna bi yëpp ci barkeel bi sallallahu alayhi wa sallam waaw ñu ngi wax nag asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh tëjkan kon kàddu yi gàtt na waaye tabaarakallahu matale na macha allah ñu ngi lay jaajëfal bu baax bu ko defee dañuy euh, jox Serigne As mu conclure li nga xam ne tabarakallahu waroon nañ ñëwaat sax ci Serigne Mourtala ndax moom li mu bind yaakaar naa àggagul waaye tabarakallahu wax bi daf ñoo xoj bu ko defee dañuy jox Serigne As mu conclure li fi mbokk wax ñu julli tàkkusaan ñu ñaan julli tàkkusaan bu ko defee mbokk yi doog a andi xéewal yi incha allah. mbokk Ngomé léegi fay la ñu ngi fi. bu ko defee jàmm ji war a njëkk a waxtaane mooy andi xéewal ñu xéewlu yaakaar naa loolu mooy mooy jàmm ju njëkk ji bu ko defee suñu borom moo njëkk a woote moo ne wa salaamun alayya yawma wulida wa yawma amuutu wa yawma ubaasu hayyan beneen bi moo ko salaamun alayya yawma wulidtu wa yawma amuutu wa yawma ubaasu hayyan li lay xamal ne suñu borom am na taxaw wax te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lay waxal waaye njabootu yonent bi sallallahu alayhi wa ci jàmm dafa ne yaa ayyuha alladina amanu xuu anfusakum wa ahlikum naar yow yonent bi sallallahu alayhi wa sa njaboot gi ne nan feegal seen bopp sawara waaye ñu feegal ko seen njaboot te loolu mooy jàmm kenn mënta am jàmm te sa njaboot amu ko te njaboot gi mooy lii ñu def nii lan mooy bokk ànd di xeeñtu lan jàmm yiw muy lan bisu bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam laata muy am jàmm te kat suñu borom mënoon na koo jox jàmm ko ko waaye déedéet dafa am ay yoon yu ko teg yabal ko ci ay xare yabal ko ci ay nit ñoo xam nii nit ñu nitu àddina lañu waaye ba mu ko yebalee daf koo jox ay siru yoo xam ne na ko boo demee bu fekkee bëgg nga am jàmm yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ko naam ba yaakaar naa ñëpp ko xam naa xam ne lu yonent bi sallallahu alayhi wa wax mu ne yonent bi li wax nan ko seetantal li mu daal nan ko seetantal waaye gis nga garab bu ma yoroon ci moom pour ñu fitnaal ko rey ko daf ko jox ay pexe ne ko boo demee da nga woote jàmm te jàmm ji yaa ngi ko njëkk a woote ci sa saxaaba yi fa bima rahmatin min allahi linta lahum walaw kunta farsan xaliisal xalbi waaye li ci am solo lépp mooy wa saawirhum fil amri loolu rek la yàlla soxla yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu fi yërmande di tàgg ci yow ak say njaboot ak say mbokk ak say saaba wa saawiru fil amri na ngay diisoo ak ñoom ci lan jàmm waxu ko ci aw waaye ci la ko teg illaa man atallaahu bi xalbin saliim buy diisoo ñoom na nga sellal sa xol waaye ñoom it nañ sellal seen xol kon mbokk yi kenn mënta am jàmm sa xol sell li mbokk bi doon wax léegi bàyyi léegi loolu solo la. nañ bàyyi néew yi jaajëf jaajëf waay booy jaajëf waay copain loolu lu néew jullit ak warul jullitam asalaamu aleykum mooy néew bi gën a gàtt te moo ëmb jàng ak yëpp ëmb jàng àllaaxira waaye dangay wax ni ne ko asalaamu aleykum mu gëstu nga jaajëf waay te jaajëf moom am na fu mu doon waxee naam jaajëf lu baax la mais liggéey ku liggéey nga romb ba ne ko asalaamaaleykum jaajëf waay mu ne la jaajëf waaye julli am na mu julli tam asalaamaaleykum xoolal booy julli sax julli boo mu yem ci yow dong du ko nangu fortement la ci jullit yi buñ sëlmalee nag asalaamu pourtant suuf loolu mënoon naa asalaamu aleyka mais déedéet parce que yéen ñi ci nekk moom la ñu ko séddale jàmm moo tax mu ne asalaamu aleykum pour sëlmal sëlmal bu njëkk bi asalaamu aleykum wa rahmatullah maanaam li ñu bëggoon a wax lépp sax fi xaj ndax taxal nii jàmm ji war a am suñu toll nii mooy jàmm xéwal yi ak suñu xéwloo yaakaar naa loolu fay ñu soxla nan ko nañ mbir yi andi jàmm xéewal yi bu ko defee Oustaz Mouhamadou Ba continué ndax moom dëgg yàlla jàmm rek mooy moom solo yàlla ñu ko yàlla defal mbokk yàlla ñu yàlla dolli jàmm yàlla ñu yàlla aar sàmm nu yàlla ñu yàlla dolli jàmm waaye nag yàlla ko yàlla def fii ci réew ñii ñu nekk gis nga réew ñii bu ñu amee jàmm ñu ngi fi nekk am jàmm bu ñu amee jàmm kenn du am jàmm dégg ngeen ba taay ñu ne ñax woowu natt na bu tooy ñàkk jàmm rek koy kon nag ñaan jàmm fii ci réew mii bu ko defee suñu borom defal na ko ci réewu Sénégal ci ñu ca nag waaye dafa tasaare ci réewu mbir yëpp wa axiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu